jërëjëf euh, chers amis téléspectateurs tey jii nag ñu ñëw ci session extraordinaire bi nga xam ni am na fii ci mairie bu Tivaouane ñu doon waxtaane nag jëmale ci euh, projet de délocalisation des abattoirs municipaux ak i tamit euh, rek usinu dëwlin boo xam ni daal établissement Le Baron namm na ko samp fii ci Tivaouane ca Kàmbu ya muy place bi dend ak daral bu bees bi xanaa kay dañuy bàyyi rek ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, acteurs yi fekk woon euh, session extraordinaire boobu bu ko defee nag euh, ñu wax seen xalaat. waaw session extraordinaire bi ñu doon def tey ñaari point la woon point bi ci jiitu mooy la délocalisation des abattoirs bi nga xam ni au mois de décembre 2018 comme ni ma ko wanee tey ci procès verbalu session bi conseil municipal bi moo autorisé woon le maire mu dem nouer ji un partenariat avec des privés.

un partenaire privé sur les abattoirs mais tey jii yàlla indil nañu lo xamanteni nii moo gën yomb te gëna a yelloo ak ak Tivaouane installé fa sen sen huilerie mais dañu wax ni ci biir conseil bi comme affaire usine la nañu fexé ba lepp luy étude d'impact lepp lo xamanteni ni euh walu environnement la ñu fexé ba saytu ko ba xamni ne du jur lor fi ci biir Tivaouane lool nak mettre nañu en place ben comité bi nga xamni dina entendre ki nga xamanteni ni moy euh, promoteur bi poser ko question yu ñu ko bëgg poser parce que mom non seulement indil nañu opportunité de fi usine bi mais ci les emploi yi dafa wax ni li si daf ko bëgg a réserver comité recevoir ba am les réponses à toutes les questions yi nous xamni nous nañ ko ñu jox ko terrain qui nga xamanteni moy mooy en respectant toutes les euh, conditions yi nga xamante ni ministère de l'environnement, ak ministère naturellement de l'industrie, industrie dañ ko koy imposer. waaw yaakaar naa comme niñ ko waxee ci conseil bi rek euh, lépp def dafa wara nek nekk li nga xam da nga ci wara discuter ak sa conseil municipal mais lo tok rek jeki jeki. jël décision jaaralé woko ko fi nga ko war a souf jël suuf su tol nonu diko jox ben nit ci ay conditions yi nga xam ne fa nga wara war aw yépp awu fa lolu motax biñu ñëwé ñu né amna benen décision bu am parce que souf ci finalement euh, ministère de l'élevage élevage euh, indi na solution mais loolu dañ ko waroon a il fallait d'abord chercher ay voies et moyens pour am ko la tabaxal bo déné ba amuloo ko ngay dogo wax leneen donc je pense que bo yoré ab dëkk da nga wara def ay démarches am nga ay député yu né ci dëkk bi nga def and ak ñom def le plaidoyer auprès de l'état auprès des ministères auprès de structure, pour que boo amee dara loo bëgg ñu ñu ñu tabaxal le ko mais pas ngay jël suuf soo xam ne lu ne la mën nga di ko joxe nous ñun loolu moo tax ne débat dina am parce que li nekk suñu dënn il fallait que ñu gagnions. ko ndax lii dafa nekkoon loo xam erreur bu maga mag la doon jur et moi j'avais pris en ma personne ci moment bobu ma bind préfet ne ko lii bu ñëwee ci yow bu ko approuvé parce que fañ ko waroon a jaarale jaarale wuñ ko fi mais yaakaar naa ni li def finalement mooy sant yàlla bi ñu solution parce que tey ko ku xool nit ñi ni ñu ñëwee salbe ni mu bindo. di nga xam ni conseils yi nañ ak détermination waa Tivaouane ñëwoon nañ ak détermination. ba ay ay diir ñu dégg dafa am un promoteur bini ñu bëgg un marché vraiment pour faire ko abattoir bi loolu vraiment mu doon lu ñaaw lu ñëpp ñaawlu kon donc tey jii ñu ngi félicité conseils encore une fois yi nga xam ne taxaw nañu ku ci notre frère Pape Momar mais di féliciter encore tamit li la vraiment euh, di féliciter aussi tamit euh, surtout Dabakh FM bi nga xamante si euh, lu xew ci département bi vraiment muy Tobène muy donc rek ci département ba kon donc nous ngeen continuer ci bobo. Nous euh, ñu àndandoo rek pour li nga xamante ne si mooy euh, intérêt Tivaouane ñu ànd di ko euh, ba tey jii li ñu am muy ndam ba la commune dellu gannaaw ci mbirum abattoir bi donc nous sant yàlla la kon donc ñu ngi féliciter encore une fois yéen waa de di féliciter donc les conseillers comme ni ma ko au moins enfin monsieur le maire de leur xam c'est pour dix ans pour cinq ans Et wax loo xam c'est pour la postérité madame. ñoom on ñu fi jógee ñun bu ñu fi jógee ñii ñëw lan lañ fiy fekk lan lañ leen donc tey dañuy féliciter le maire ak tout le conseil municipal ci décision bi jël par rapport ak dossier boobu nga xam ne moo doon agité dëkk bi. agité woon dëkk bi trop. ñu bari yaakaaroon ni ici bii nii du mën am. mais alhamdulilah ci dëkk El Hadj Malick la. dëkk El bu joxante waxantee rek lepp tegu ci yoon. ndax lolu la ñuy yare taalibe Cheikh ñu la gaay deuk bi lolu la ñuy yare dëkk bi. dañu ko moñé kon nak on part par victoire on part de l'écoute du maire et du conseil municipal. envers la jeunesse de Tivaouane décision bu génn tey bu leen yaakaar nag dafay génn ñu ne am nañ ñu waaw rek dam toog nelaw dañ koy si cest à dañ koy suivre mhm. li ñuy bëgg kay mooy mhm. boo lëggee mhm. lu mu laaj rek ñun conseil municipal moo yëpp doole monsieur le maire fi kàddu àgg suñu kàddu àggu fa maanaam bëgg mooy suivi bi fu ñu ci nekk rek ngeen ànd ak ñun conseil municipal ànd ak ñun maire ànd ak ñun affaire bi xeex bi mu ngeen a toog ñu xeexal leen ko yéen ngeen di jàpp rek Tivaouane dafa sonn ci ay promesse non tenue waaw promesse non tenue moom doon ñu ko accepté ti ku dig Tivaouane def ko alhamdulilah ku dig Tivaouane defoo ko ñu def persona non ñëw fi gars duñu la teeru te ñëw duñu la teeru nag lépp di xaj c'est que day leer parce que ni ko duñ ko duñ ñu fooye dañu fi nekk de bu ñëwee tim sëñ bi wax ko ñaari wax yum leen après ñu toog toog dëdd nelaw ñooñu wàcc ñeneen ñëw changé programme non du fi am hmm. les choses là koy wax ñoom ñu bind ko signé ko acté ko teg ñu topp ko ba mu réalisé wu. te nag lii nii affaire du day yem ci maire bi rek fépp fu mu àgg nañ ko àggale. parce que tey jii nii Tivaouane moo booloo mm-hmm. ni lii baaxul dañ def li gën a baax. Mm-hmm. te li gën a baax mooy li ñu wax ni moo gën a baax. Mm-hmm. moo li nga xam ministre moo ko proposé. nañ ñaan yàlla mu réaliser ci ni mu gën a gaawe parce que population Kër Cheikh bi fee ñu nekk les faits dara bi nag abattoir bi bu jóge fa bokk nañ seen ay lu ñuy yàgg ñaan. leneen li ci des mooy forage forage bu bees bële. ak abattoir bi bu ñu ko defee. Mhm. loolu day defar day yokk taaru dëkk bi. it contre ñu loolu contre ñu defar bi. Mhm. mais anam bi la ñu wax. anam bi mhm. moo nekkoon suñu problème. anam bi nag comme que ko na. dañ ñaan yàlla ak yéen média bi. ngeen jàpp ci. amul farfarloo. affaire de ay Diagne si affaire de Aziz Ndiaye. affaire de Tivaouane la. il faut ñuy bàyyi suñu bopp di dem Tivaouane nañu fàtte suñu bopp. ngir yàlla encore une fois. non lu mu mën ci doon. mënuñu faa def dara te jaarul ci conseil bi parce que bañ ñu yaalee. jaare ko fenen conseil bi dafa taxaw né li du ko nangu tey buñ ko jëlone dañ ci def lenen aussi bu ci conseil municipal bi andul yaakaar naa ne du mën nek donc encore une fois lolu limu mu def bari na nañ ko càmbar étudier ko centre commercial mën na fa né lycée technique mën na fa né yeneen i projet mën nañ ko fa def et ce que j'ai dit bo demee ba xamoo lo fay def mais nga bayiko fi réserve foncière dafa bax ci dëkk

non mënu ma voté loolu man du ma voté lu ma xamul dans ma vie. gis nga conseil bu ñu ñëwaan indi projet yoo xam ne càmbar nañ ko am nañ ci ay xalaat dañ koy wax bu ñu paree ñu voté ko mais lii man xaw ma ci dara te usine nekkul lu ndaw nekkul lu ndaw est-ce que waxtaan nañ ci ak kilifay dëkk bi est-ce que est-ce que est-ce que ñun conseil yi balaa ñuy voté nit ki boo ko xasee ba may sa doom ba pare mën nga ca dopp ci ginnaaw naa ko ana may gu njëkk gi ana waru gar gi. boo ko mayee sa doom ba mu yóbbu ko boo ko laajee dalay wax ni séqatuma ak yow dara c'est ça l'erreur donc am na question yoo xam ne mënuñoo ñëw voté ba pare doog a toppaat ci waa ji naan ko lii loo ji xam lële lan nga ci xam gis nga nit bu soxlaa sa yëf du yow yaa koy neexal teg ko condition yi nga xam ne yëpp yoon may na la ko xalaatal ëllëg usine dawlin mënut a ñàkk ay risques parce que dafa am ay produits chimiques yoo xam ne moom la ñuy utiliser. lu nekk la mën a def usine euh, euh, euh, gerte foo ko gis ñuy exploité dëwlin ma ngay jëf-jëf yi saxaar saa ngay naaw di dal ci kaw nit ñi Tiwaawan dëkku événement la tey bis boo ko fi defee muy saxaar di jëf-jëfi ci kaw nit ñi gan ñi ñëw fi kenn du dégg mais loolu du loo xam ne da nga koy délibéré comme sax xet boobu rek la am mooy maanaam xetu ci Tigade gi donc yaakaar naa ni fu ñu ko waree def vraiment lieu bu ñu ko war a def lieu bu baax la lieu bu indiqué la.

d'arachide la usine de euh, euh, de trituration mooy maanaam usine bi nga xam ni dafa jël xolli gerte bi ba pare nal ko génne huile bi leneen li nga xam ne mooy desitu gerte bi ñu jël ko defal ko. ñu leen di jaajëfal bu baax euh, mu nekkoon reportage Cheikh Ahmed Tidiane kan montage Pape Ndongo Pouy Dabakh FM TV.